شكرا لكم شكرا لكم سنمك نباخ يفدان ياري دينو وان ديون وين جوبي بوكي جلدي غنو بنو سانتي سونو بروم سبحانه وتعالى جلتي ننتم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نونغ دينك سونو بوب taqwallah di ko dénk képp koo xam ne nangu ne ku ko dénk di ñaan yàlla bu ñuy wuy ji wooteem boobee nga xam ne ku dem du dellusiwaat yàlla ñu fekk ñu doon ay jullit ñu xam ne jullit boobu ku ko xas ba tudd daa war a wuyu aw turóom nga xam ne saa boo ko ne ay yi mu geesu loola nag la ci jiitu mooy jëfe li suñu borom sant ab jullit ba noppi su ci jógee ba wàcc mu xam ne nag suñu borom moom ko santoon liggéey boobee daa am ñu mu ko séqal ñoo xam ne loolee mu doon def digganteem ak boroomam lii muy séq digganteem ak mbokki jullitam ak mbokki dëkkandoom dana rafetal loola lool lu ca mel na mu war mel lii dana ko rafetal kon ñu xamne julit bu nek amna lu ko war ci mbokum julitam digganteem ak mom muy lu ko ka mom ci mom su ko ko joxe def na la ko war su ko ko joxuti bayina lu bari lu mu waroon a def digganteem ak mbok julitam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ci ak déggam ci am njàngaleem mu leer lam ca soññee yu bare bari la waaye bokk na ca loo xam ne fu nit doxe ma naatase ak moom muy xaq ju ab julit am ci moom ba ca jiitu mooy ku ko romb bu ko nuyoo fekk mi ngi toog moom nako fay momit kum rombu mu nuyu la bu ñemee ci alquran dañ ci fekk ndekete dello ab nuyo li nuyo di am solo lépp dello ab nuyo moko gëna ñor ndax day kooka dalay won ne mom jam la la ëmbal nga di ko wan ne li ne fi mu ëpp li ne foofu fuf wa idha hayyitum bi taxiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha moy assalamu alaykum غنيك وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سنيو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نغوخ لثلنونا ولا غني وعليكم السلام محمد فاينغا فحيوا بأحسن منها أو ردوها نيار البموي ويجيبه إذا دعاه موي بني تنخم لو di dem ñu naan la sëñ bi eh nga ne kii daa yabaate waay du ma moroomam bam di ma joor loolu duñ ñu ko gënee jege suñ jamono mooy wuyu téléphone rek da ngay dégg ku ñu yéem naan saa boo ko wayee moom ngay jot waaw lu muy doy téléphone bi kon su fekkee du ko wuyu kon wuyu téléphone daa bokk ci jëfe sunna waaye su déggee ne diw wéré dina it bu fekkee ñoo bokk dëkk buñ nekk walla biir réew muñ nekk jar na jóg dem kooku am xelam dana dana dal ci ne ndekete lii ko dal bàyyeewuñ ko ko waaye du ko fàtte mukk bu dee ku sori nekk feneen yii dem léegi bari na yii dem barina waaye nag wa yashhada janazatahu ida maat mooy koo xam ci jaxasoo buñ ne bàyyi na fi su ko sa jot mayee nga dem ba àgg dafa bokk ci ñi lañ koy defal am na ñooñ daa mel ne weesu nañ ko ñi ca gën a góorgóorlu mën nañu ñëw ba ci biir armeel yi fa ñuy jullee ñu nekk ba ñëpp teew ñu ñëw jullee ko ne war wëlbit dem léeg-léeg sax ñu ne ko ñaanal fii ñu yóbbaale ko waaw bu ñëpp defee noonu ku koy yóbbu ak ku fay dem ak ku koy dugal sa biir ak kan moo koy defaral lañ ko war a defal gannaaw bu ñu ko jullee ba noppi kon boog dem ci armeel fekke ku ñuy jullee jëfe sunna la waaye la si gën a ñoroti mooy bokk ci ñay dem bañ defal ko lañ koy defal lépp nga soog a wàññi ko dale ci sa yitte su fekkee jot gi maye na ko waaye bokk na ci jëfe sunna it ku ñëw laaj la loo xam ne da caa soxla xalaat te xalaat jam cay soxla diine ba ko ca xalaat jaar nga ca ba jàll wala jaxasoo nga ak ñu ca jaar nga laabiire ko ngir yàlla loolu it lu ab jullit am la digganteem ak àq jum am ci digganteem ak jullit yi la suñ ko ko joxee ak buñ ko ko joxee waaye wa yamurahu bil maaruf wa yanhaahu anil munkar su gisee loo xam ne war na koo def te defu it demal na ko lii da nga war a def su ko defee jaanam wàcc sa jaan wàcc su ko defut sa jaan wàcc waaye soo gisee mu ne ci lu mu sa nekk it ba fësal ko mu ne fang bokkal ca ñay dem na ko lii dee su ko def su ko bàyyee baax na sa jaan wàcc jaanam wàcc su ko bàyyiwut yow sa jaan wàcc wa yaxfadahu wa bi dahril xaybi bokk na ci it àq julit am ci digganteem ak mbokki julitam ñu bañ koo tudd fu mu nekkut ku ko tudd fu mu nekkut xañ nga ko lu mu waroon a am ci yow yi nag ab safaan من القرآن دي وخني ولا يغضب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه لا بيرك وكمون يوسف صلى الله الدين النصيحة waaye nag lu mu bëggal boppam mu bëggal ko ñëpp wala boog mu def ñëpp am nattukaay lam leen di yéene moom na cay jiitu la muy gis moom du bañ kan du du du bañ ku ko ca fekk waaye la muy bëgg it ba di ko wutit bu fekkee daa jiital ñëpp du ko bañ a bëgg waaye lu mu gis ne moom mii gënut ci moom na ko bañ te bañal ko ñeneen ñëpp bu mu seetaan ku cay dugg wa an yuwassia lahu fi l majlis xàq la ju ab jullit am ci mbokkum jullitam rawati nak muy mag ko xane moko moo ko mag lu mu néew su ñewé fekk ko mu tok mu ne wi wi amul fu mu toog na ne ñëwal tok ni buñ bu ko wax gutit buñ ko ne sëñ bi tenga ne 10 ne rek buñ ko tek ba يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفصحوا في المجلس فافصحوا يفصح الله لكم وإذا قيل انشذوا فانجزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ويسو أمي لو خمنا يت لمدون ود لموتكو تيج با أمكو حق جم أم تجلوتي لن يدم نكون روك واي جناو أمكو ويسو أمي أو تيشت ku ko man na nga dem ne ko waaye mas sax loolu it xaq ju am ci jullit yi la wa an laa yastatila alayhi albinaa li yushrifa alayhi ak a bari ci suñu jamono koo xam ne day ñëw ci ab koñ rek yor astuut gis ku sonn dimbaliwu ko waaye dafa bëgg mu gën a sonn ba jaay ko këram gii mu dëkkoon wala mu xaaj ko jaay ko su bañee bañ bañ mu ne ko jaay ma xaaj bi won ko ci alal loo xam ne mosu ko gis mu nangu ba mu defee da koy jox mu wàññiwaat ku mos a gis lim boobu day defe ne loolu bu ci jotee tam du jeex bu jotee genn walla nga sax baax ndax som mu jaay ko ko ba noppi nga xam ne jaay ga du jaay waaye da ko xaw a mel ne ku ko foqar ci daal di tabax nag tiim ko ci kaw duutu am ngelaw duutu amuk leer léeg-léeg mu taxaw ca kawam di xool man na faa gis sax lu mu warta gis loolu tam yonent bi sallallahu alayhi wasallam xàq la ci ab jullit bu nekk bu dë bu dëkkee ak ku ko gën a ëpp doole ci saayir xàq la ñu am ci moom muy bañ tabax di ko tiim wala ba mu def ko anam koo xam ne gi du ko xañ ngelaw du ko xañu leer te du taxaw fenn di ko mën a séen waaye it wa an laa yudihi bi riixati qidrihi illa an yagrifa minhu mooy xàq la ci ab julit mbokkum julitam amal ko ko kooke ko ko amal su demee bay soppi ci nam sax sëñ te taalaale mu di ko xeeñ te du ko ca yàkkal sakkantu wa nag di ruusi fa sa këram xet gi ubbale këram gi te boroom kër gi du xam fu loolu mujj yontu bi sallallahu alayhi wa nag ne su fekkee wóor na ko ni dana ko yaatal ba dana ko ca mën a yàkkal donte am ñeex lay tànk yit ko yit tegal ko ca wenn dog it suko defé koké bu ko nexé gërëm ko bu ko nexu bu ko nexul bàyyi la haq jum am ci mom la waaye lim sëñ fa def ci mom dal moy diko xeñal xet gi te du ci mosal dara waye haq lu ju ab julit am ci mbokum julit tamit bu xasse ba tambalé waxalé dara bu mu dem mukk di déglu ba xam dana xatch wa wala déet wala muy def kay jaay no xamne dana wane ne bëgg ko ko jaay man lima ma yor a bari déedéet kon xàq la ab julit am ci mbokum julitam su demé bay waxale kenn baña a digënté digganteem ak kii jaay ci genn anam ba bamuy muy xàcc ak mom wa alla laa yaxtuba ala xitbatihi xata yadar wo ci gëna a da ngay dégg naan moog diw ñoo doon jamaale ab jamaale loolu di dina xamu ko dina nangoo moy ku ne di ñëw ci kenn ki di wax say wax leeg kenn ñëw ne diis toog ak nam ñëwee kenn ka xëyatu fa ndax minute ni moom mu jóg dem lu ñaaw la moo tax boo xasee ba déggee diwa ngi ci rek génnal yaw mooy labat fu ñu xas bay labate moom moo tax jàkk yi dañoo war di laaj ak ñi maye ñëpp mbaa kenn nekku ca woon mbaa kii ëpp ko doole rek ñu jox ko mbaa kii ëpp ëpplewu ko kàddu rek ñu jox ko ndax am na fi ba tàyyi yónnee fi barab di wut lu koo ka nga yónni dem far lijjanti ko xaraam lu ñaaw xaraam ji lu ñaaw laa si jublu te it yónni bee ko tere mu kenn labat ci kaw labatu mbokkam lu dul mu dem dem ba bàyyil boppam waaye bi ma ciy jeexale mooy léeg gis dëkkandoo yoo xam ne kii day man dara kiitale ko ki man dara nag man nga dara day feeñ ci këram day feeñ ci njabootam ba àgg ci day wutal ay doomam loo xam ne kenn ci waa koñ bi amu doomam joojee génn ci mbedd mi di ko won doomi ñi nga xam ne mënuñu la man loolu yit xaq la ju ab julit am ci mbokkum julitam mu bañ ko ko teg am na si ñu seen doom dañ leen tëkk tax takk taxawal ci wutal ma li diw am te fekk mënu koo am ni ko diw amee yàlla na yàlla boole si ñi nga xam ne luñ dégg muy wax suñu borom di jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu jàpp ko te moytu lool xaq yooyu ndax xaq yooyu dara mutu caa xeeb mag ñi daan jàngale xàq dëgg dañ daan wax ne lépp loo xam ne buñ ko defee ci sa bët danga dox sa diggante gis rek bul ko amee nit ci xàq ndax bis dina ñëw mu taxawal na la fay ma ko booy fay di fay di kooku nag buy fay di fay ba di situ dara ñi koy fayu wéy ku ne di ko fayu dañuy tàmbale jël ci lu baax lam yor di jox ñooñu lee lu mu fa dencoon la waaye lu baax lam moomal boppam dëgg ci lañu jël di di joxe su demee ba jeex ñiy fayu të noppi ñuy jël ci safaanam ñooñee di ko sëf لونا تولو فمي موجو فكن فكن بغوت ادم يالنا ان شاء الله مسال يالنا يالا غنا تابي سوني خول غن ньо دغلو نانغلم صلى الله عليه وسلم تي دافور جو ديغ اك توب يغفر الله لنا ولكم وللسائر المسلمين امين شكرا لكم شكرا لكم سنو مكنوباخ yi fi daan yare dinu wan di yoon wuñ dee